Siwdu jàmmi boom maa dara lépp lu yëngu yow la ñëpp ak maa ngi baalu ñëpp ak dama julli ba pare di seedaloo yàlla sama borom kàddu yi ma bëgg a yëkkati wax ak ndoy baan ndoy baan ah xaas da ay nit feebar nañu ay at tok ci seeni chaise yàlla boole leen ak xaas xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla yëkkati leen ñu dem doxi seeni soxla ànd wér lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas ay jigéen yu toog ay at sëy taxaw mënuñu am doom yàlla boole leen a xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla may leen njaboot ba ñu jël seen njaboot tuddee ko xaas lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas ndoy baan ay nit yu dem ba mag mënuñu sëy yàlla boole leen a xaas xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla may leen ay borom kër lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas wala xalaas moom lu rafet du fa jàll wala da nga yàkkamti motax nga dem jubale ci fambay pour bëgg daanel khas. xaas dafa am loo nit ku ne da ci sédd yalla suñu borom ndax nak li du mujju de ñeppay dee dee day am de wallahi lazim te ku ci nekk nak war na xalaat sa bàmmel ndax sa jëf ju rafet rek la fay fekk ak bi nga tek sa morom nak sa morom rek la ko mëna a baal fàmbay nag yow man mënu ma wax dara wax deug fa yalla ndax nattu bi la yalla tek te kep ku sa xor rafet rek mi ngi lay ñaanal nga juk fofu nga waaye xaas li mu ko jaral pour nga jóg wallahi azim nit yu bari jaral na leen ko pour nga toog foofu ngir gàcce xaas waaye nag yàlla mi ngi ànd ak ñi muñ yàlla mi ngi ànd ak gor ndax nag wéet gore wéetaliku gore maa ngi jéggalu ñépp nag bu dee kàddu yi rafetul maa ngi maa ngi jéggalu ñëpp wax dëgg fa yàlla xëy na damay gor rek di xool tey ji bu doon jabar dina bu doon jëkkër dina amel ak jabar ci julli ak wird ma xam ne kon xaas dina ma amel ak ba fajar du meuna sax waxtaan ak man ndax ji nekk ci liggey doomu aadama yi rek kon nak sant yalla bal len ma ak bu baakha baakha baakha a baax a baax maa ngi jégal siw du jàmmi boom maa ci xam dara lepp lu yëngu